université Cheikh Ahmadou Bamba 103.5 di téeméer ak ñett yu tombal juróom ngeen ñuy toppee eh, ci bande FM bi kon rek xibaar yi dañu koy doore rek lu soxol tiis yi nga xam ne kon moo wàcc ci langu taskay xibaar yi nga xam ne kon ñoo nekk ci dig digal bi doon wàcc liggéeyu pa benn xale ci caméraman yi nga xam ne kon ñoom noo amal liggéey bi ci rawatina ci wàllu ko presse en ligne bi Cheikh Fall lay wuyoo accident la am démb woon rek ci corniche ba foofee moo xaw a toll yoonu Tindo di wa mu doon moto bu yoroon moom la yor moo daje ko ab camion kii gaañu gaañu moom la si jële mu yóbbu woon ko l'hôpital nag ca la jaare faatu ni ki démb nag kon la xew-xew bi am tey ji lañu ko jébbal boromam foofu de ca Baqiya mu doon jotaay bu teewe na ko mbooloo mu takku rawatina nag ñu yëngatu ci fànn wi rawatina waa presse en ligne bi teewoon fa ci lim bu takkoo takku kàddu seer yi nag di benn yar ak mbaax gi nga xam ne kon moom la ñu nemmeeku woon ci Cheikh Fall ak jullite gu naam seedeel nañu ko ko ca ñu bëri nag ci kàddu yi doon rek loon ay kàddu yoo xam ne kon xol bu fees nu ko ca yëkkatee nag ak naqar ku tiis waaye luñ ci mën nemmeeku rek dellu lépp ci euh, dogalu borom bi ñenn ci yëngatu ci wàllum tasum xibaar kàddu yi seede yi nga xam ne kon jël nañu ko ci jëmee ko ci Cheikh Fall mi jiitu ji ñu teelu leen ci micro Moustapha Ndiaye. Khadim Ndiaye cameraman xibaar 24 suñu Cheikh Fall di nekkoon koo xam ne suñu xarit suñu xaritu bopp la man li ma daa wax moom mooy yow moom sama waay nga sama waay nga sama xarit nga maanaam mu nekkoon bu dee kii day nekk moom da ngay xam ne kii nit ku sell la liñ seede ci rob bi rek mooy fu fu ko waxtu masaan fekk day bàyyi li doon def lépp dem julli ji même bu fekkoon ci biir émission la sax day dagg li doon def lépp dem julli ji ñëwaat kon li mu ne def li ñu wax ci moom mooy ab julli la woon ku bëggoon Sëriñ Tuubaa rek doon ab taalibe donc am ñëpp jàmm xam a jafe ci àdduna mooy surtout suñu métier muy métier presse maanaam boo ci nekkee nekk ñëpp amee ñëpp jàmm loolu jafe la te Sëñ Cheikh Fall la meloon fii nag kenn ku ci nekk ci gars yi da nga naan Sëñ man rek la nekkoon sama xarit rawat na man nga xam ne man di di gëj a déggante yàggut te dañ daa lu bëri daan waxante wax waxi biir yu bëree bëri bëri mën nañ ne ay mbokkam ñàkk nañ waaye ñun nga xam ne la bokkaloon presse ñoo gën a ñàkk waaye yal na suuf ay fa ci kawam yal ko Sëriñ Tuubaa teeru directrice Sénégal wet suñu doom suñu xarit muy Cheikh Fall doonoon cadreur nekkoon ci réew mi média waaye nag tey mu bisu tiis ci ñun bis metti ci ñun ndax man moom dafa doonoon sama doom doonoon sama xarit bëri woon ay mébét lool yoo xam ne maa moom dañ ko doon partagé wu dëgg yàlla bis bu mel nii moom ñàkk naa ku ne ñàkk naa bàyyi waaye bis bu mel nii yaakaar naa ci métti ci man mu ngi doog am ci man ndax dafa doonoon sama doom dafa doonoon sama doom doon sama xarit dama koy ñaanal yàlla rek euh, yàlla xare ko àjjana yi gën ci barke Seydina Mouhamed suufu Tuuba sedd ci kawam ndax bu ñu wër gone gu baax gone gu yaru gone gu respecté doomu aadama buñ gisee seex rek dañ koy jàpp seede bi yëpp benn nag kàddu yi benn la mooy ak a baax lenn rek lañu koy ñaanal mooy yàlla bu ko cat jiitu ci bàmmeelam wax naa ko léegi ay mbokkam ma ne ko da ngeen a mën a jooy rek waaye ñun ñi nga xam ne ay xame rek lañ dañu koo jooy ba tas man de mënu ko woon muñ dama mujj dem ba fa mu tëdd ma xool ko sama xol doog a dal kon ñu ma woon muñ rek ne man ne seex dee na seex dee na nii déedéet ñu ma ko woon ma ko woon gëm sax man ñu ma ko woon gëm ci nelaw lañ ma yee ma ñàkk nga sa doom sama doom la woon daal sama doom la woon sama xarit la woon sama doom la woon sama doom la woon Papa nekk sur Assalaamy TV Cheikh Fall mun naa ne bi ñuy door a xamante dañu gis rek bëggante fekk na deret moo ko lal xamante na lu yàgg te yeex na maa xam ne sama mbokk la ak Serigne Touba seet siñ Mbàkke lañ xamante mais daf maa gis rek taqal ma boppam bañ na ko ba sama tur sax du ci jaar doom baay rek la may wax doom baay kese la may wax ba sëñ Mbàkke daf ñu daan tooñ naan ñaari paaleen da ñoo ma séq bañ na ko ba añu sëñ Mbàkke bu masaan tege danaan sëñ Mbàkke bi sama doom baay ñëwul añ bi du tijjeeku loolu moom rayoon nañ ko Cheikh Fall di ku baax di ku yaru ku am respect ci doomu aadama kanamam gi mën nga koo bañ a gis mhm. boo dee nuyu barki Serigne Touba Mbacke doo dégg sax làmmiñam boo ko fekkee fenn moom da koy jaral mu ñëw fekk si la nuyu si la mais sax doo ko fekk nuyu ko alalam boolewu ko ak kenn boo ànd ak moom dem fenn da ngay ruus parce que xaalisam bépp dala ko da nga yor sa paas mais daf lay paasal danaa ruus na maa ànd ak jigéen mu génnee xaalisam di def te man ma nekk ba ci màggalu Daaru Xudoos gi màggalu Tuubaa gi ay dafa baax ba ku gis def na ko comme boppam olof Njaay nag dana nit ki balaa nga koo xam mu wan la ginaaw loolu moo ñu dal ci Cheikh Fall li nga xamante ni ay dëkkandoom lan bokk moom liggéeyam ni ñu ko xamee sax amaana ay mbokkam xamewuñ ko noonu man mii daf maa présenté ay xaritam yu bëri yoo xamante damay déggante ak moom te yàlla ak moom a tax Aïssa Fall mi Cheikh moo tax ma xam ko moom ma ko présenté te boobu xam ma ne woon sax suñu mbokk la barki Serigne Touba Mbacké dama koy ñaanal yàlla suñu boroom suuf woyof ci kawam fa nga xam ne fa la jëm yàlla na ko dàqal fii mu jógee maa ngi ñaan suñ boroom njaboot gi nga xam ne moom la fi bàyyi ay waajuram fameen yàlla jox leen xoolu mun dina metti nag pour ñu fàtte ko ndax Cheikh dafa nekkoon doom nekk mag nekk rak nekk nag ku neex a doomoo ku neex a rakkoo ku neex a magoo ndax cër ko yàlla jox man daal sama xol dafa tooy mu mënuma wax lépp mais maa ngi koy bàyyi suñu borom daal ñun nag xel dal na ci moom yàlla bu ko ceeb jiitu ci bàmmeel daal la ñuy ñaan ci bàkki Sëriñ Tuubaa El Hadji Fallou Sylla nekk journaliste euh, correspondant bu Lamp Fall TV di administrateur aussi euh, site internet bi di assalaamy point net su wax rek inna lillahi wa inna ilayhi rajiun euh, ndax ki fi bàyyi ko mu Cheikh Fall mën naa ne bi ma xamante moom yàggut waaye li ma xam ci moom yàlla dogal na moom la lépp seere ci moom benn mu yar gi ndax fépp foo xam ne mos nañ fa daje ak moom amul kenn ku mas a gis mu jëf lu tegginewut képp koo xam ne ku ko féete mag la jox na la cër bi ñi nga xam ne mën naa leen féete mag aussi joxe leen cër xam ne kenn kenn mos koo gis ci loo xamante ni lu naan dafa ñaawi teggin wala jëflante nag nit ñoo xamante ni bañ ci xam ci ak ak ak ñàkki tegginam kon loolu sant yàlla waaye jullit àqan la woon muy ak jaamu yàlla boo xam ne saxaloon na ko ndax ñaari rek moom moo ñu fi bàyyi muy liggéey jaamu yàlla te ñaari saxaloon na ko di ko ñaanalaat rek ci yàlla xaari ko àjjana yàlla na ko yàlla jéggal ak mboolem jullit boo xam ne fekk na ko fa ak ñëpp nga xam ne ñoo ko fay fekk ji tey loolu yàlla na yéex seere yi daal rafet na lool ci moom tey rafet na ci moom jot yàlla boo cat jiitu ci ci ci bàmmeelam yàlla na ko yàlla jégal ci barke Cheikh Khadim ñu fi des yàgg fi loolu tey rek ndax euh, jàpp ndax man euh, am naa lu jege at moo xam ne maa moom ñooy liggéey moo daan filmeel waaye li ma gënoon a marqué ci moom bokk na ci ku fonkoon waxtu la ndax heure bu ñu la di dem reportage ba nga xamante si ni waxtu wi jege na te jotagul du génn mu ko te yoroon jàpp te liggéey bi heure bu ñu ci nekkee ba waxtu julli jot day bàyyi lépp lu ñuy def dem julli ji ba bu fekkee nag liggéey bi jàpp na ko ba mënul dem jàpp julli ji bu liggéey bi jeexee bala muy dajale ba muy fiil li muy njëkk def mooy dem dem julli ji te itam ku fonkoon ay waajuram la te itam ku amoon ambition ci ay waajuram la ndax chaque jour li ma daan wax mooy responsable la damaa bàyyi ak njaboot kon fépp foo xam nekk naa fa damaa war a wane la bon exemple kon daal li ñu koy ñaanal mooy yàlla bu ko cat jiitu ci bàmmeelam ndax li ñëpp seede ci moom mooy dëgg wama shahidnaa illaa maa alimnaa jooju ñu wax nag mooy wér ndax léeg-léeg nit dem ñu ngi di ko seedeel loo xam ne rafetal rek tax ñu di ko wax waaye ñi ko seedeel ñëpp li ñu ko waxal loolu la def kon ñu ngi koy ñaanal yàlla na bàmmeelam yaatu yàlla na rëcc lu mu doon def fii nga xam ne moom mooy àdduna yàlla ko àlaaxiraam daxal àdduna. Touba Info di trésorier association des professionnels de la presse en ligne du Baol gone la woon goo xam ne gu ami teggin la gu yaru la it a teey a dal alxuraan day wax ne wa maa shahidnaa illaa bimaa alimnaa waaye yàlla ci boppam moo ne wa maa kunnaa lil ghaybi haafidiin li ñuy wax ci moom it yàlla ñu siim xam na ne moo ne ci sunu xol loolu lañ ko jàppe woon ci bi muy dund xëy na man mënoon ma ko lool waaye saa wuñ ma saan gisantee ni ma xamee woon sax ak ma doon bàyyi xel man xëy na bàyyi ko woon xel gën a xam mag ñi waaye nit la xam ne xemmee moon nañ lool ay jikkoom ak melokaanam aw doxinam it rafetlu woon nañ ko lool ndax kenn mës a dégg benn bis wala benn jotaay bu mu amee waxee kàddoom jóg bañ naan Cheikh a ngi wax sax doo ko dégg wante mu laag muy wax wax joo xam seen ju ñaawal wala nag xam nañ ni xale bu yaru la ku dal la ku teey la bu lijjante dara ak nit sax du ko wax ci public privé la ba mu sot loolu day wane ne ko doon defar éducateur ya ko éduqué def nañ ci moom éducation bu baax def nañ ci moom tamit euh, li ñuy wax doxalin bu rafet ñu ngi koy ñaanal yàlla mi ngi xam ne dara taw ko xam ne lu sotti moo ko sottal lu waaye amit moo la ko jox lu waaye ñàkkit moo la ko xañ yàlla yërëm ko te jéggal ko xaari ko àjjana fir daw si gone la woon gone gone gu ndaw la waaye ay wajuram yàlla na yàlla euh, teg ci seen loxo loo xamante ne wala def ci seen xol loo xamante ne dinañ ko mën a muñ barka Cheikhul Khadim loolu doon na kàddu yi seet yi nga xam ne kon bawoo na ci naataango yi nga xam ne kon teewa noonu denc bi nga xam ne kon doon noonu ko denc xale loolu di Cheikh Fall doon caméraman ci li nga xam ne kon moo di ëttum euh, tasum xibaar yi ci euh, dig-digal bi loolu di dëj bi ñu ko doon amal kon ci euh, kër mbokkam xam ne kon moo nekk ci géde gi mu nekkoon di fàttali rek ne ñaan gi kon ëllëg lañ ko fas yéene amal ci dibéer ji ci foofee mu fekk baax di colom Fall mu doon incha allah jotaay bu dana nu ci dellusiwaat ci sunu kàddu mboolem groupe communication UCAP ak njiit li ak mboolem ñu fi liggéey di jébal seen njàll mboolem tasukatu xibaar yi nekk ci gox bi waaye itam njabootu Cheikh Fall mi nga xam ne kon moo wàcc liggéey di ñaan sama borom xaare ko aljana te jéggal